Ibrahima Seck merci ñu gis ni forum civil antenne sénégalaise ONG transparence internationale présenté na résultat indice perception corruption atum 2019 est-ce que mën ci loolee tuuti. waaw ñu ci mën a mooy euh, Sénégal góorgóorluwul dara góorgóorluwul dara ci wàllu xeexum ger euh, ci Sénégal parce que li koy firndeel rek mooy euh, mag ki nga xam ne am nañ ko muy quarante cinq euh, sur cent mhm. te pour nga xale sax buy jàng wax dëgg yàlla bu ñu ne kii góorgóorlu na il faut que moom moyen mais Sénégal amul moyen malheureusement et ñun dañoo jàpp ne li ko waral surtout mooy manque de volonté politique wax dëgg yàlla au début du mandat de l'actuel président je pense que y avait des volontés qui là de volonté euh, théorique a travers la mise en place euh, euh, d'institutions, de la loi, code de transparence, finances publiques, déclaration de patrimoine, réactiver cours de répression de lancement illicite, mhm. etc. Mhm. mais jàpp na gis nañ ne kat bi nee ba ci bi nee ba ci biir mhm. mais gouvernement bi dafa xëcc frein taxaw am lépp loo xam ne wàllu guerre la day bàyyi bu ko ci rapport nangam gouvernement bi défendre dana wuyu. Mhm. te président du si wax dara. donc loolu dafay affaiblir complètement euh, euh, euh, la lutte contre la corruption. Mhm. te boo xoolee également. en matière de financement des partis politiques en matière de, de lutte contre les conflits d'intérêts en matière de de de de l'accès à l'information mhm. loolu dafa nekk loo xam ne lu lu jafe la Sénégal lu amul Sénégal la donc luy gën a nasaxal réduction des comptes maam loo xam ne euh, par rapport bi bu fekkante ne da ngaa far ci gouvernement bi kenn du la toppee dara bu fekkee far keneen dara. Mhm. donc loolu moo tax Sénégal wax bu mu nekk ci position boo xam ne position bu bon a bon la baaxul ci Afrique baaxul ci Sénégal. Mhm. baaxul ci UEMOA baaxul ci Afrique. guerre bi du Sénégal képp la laal ndaxte boo xoolee yenn pays CEDEAO yi boo ci génnee Cap Vert daanaka ñoom ñëpp ñu ngi ci zone rouge bi. waaw loolu euh, je pense que jar nañu ñu taxaw seetlu parce que euh, gis nga fu corruption am. donc mm-hmm. lu ci bëri bëri bëri bëri bëri bëri. pauvreté daf fay daf fay bu corruption sax ah bu corruption sax euh, boo xoolee pauvreté daf fay daf fay sax. Mm-hmm. boo xoolee boo ko méngalee par exemple rapport IDH moom ci développement humain yi. au niveau de l'UEMOA wala même au de la CEDEAO dëkk yu bëri yu mel ne Mali yu mel ne yu mel ne Niger yu mel Burkina Faso. ñu ngi ñu ngi ci wàllu ci wàllu pauvreté bu mag a mag teewul également ñu ci wàllu insécurité mhm. donc jar nañu def nag ndax bu ñuy wax ci wàllu corruption bu ñu jàpp ne war xaalis moo tax ñu wax mhm. te wàllu corruption xeex corruption également mooy xeex véritablement l' insécurité dans dans dans dans notre zone Mhm. te Afrique Afrique fii Afrique de l'Ouest CEDEAO Cap Vert moo ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax mais ginnaaw Cap Vert mhm. am na beneen dëkk boo xam ne génn na zone rouge bi ndaa mhm. ngi zone zone rouge bi ba progrès sax progrès ci zone rouge bi tax beneen par exemple beneen ñu ngi progrès progrès progrès ci zone rouge bi je pense que bu ñu continuer ndax ne peut être mën nañ dem ñoom ba génn zone rouge bi te ñun wax dëgg yàlla Sénégal ñaaruñu quand même di xool di seetaan que beneen di progressé génn jëm bëgg génn zone rouge bi ñu ñu taxaw ñu ñu taxaw rek fi ñu taxaw Mhm. li gën a yées euh, Birahim Seck moo di réew yi nga xam te ni ñu ngi bokk ci UEMOA daanaka ñoom ñëpp ñu ngi ci zone rouge bi. waaw loolu tam benn fin parce que euh, muy Mali Bénin Burkina Togo Guinée Bissau Sénégal Niger wax dëgg yàlla pays yu nekk ci UEMOA yëpp. ñu ngi ci ñu ngi ci zone rouge bi. Mhm. te yàgg nañ fa nekk tamit parce que daaw ñu daaw tamit ñun ñëpp ñu ngi woon ci biir. Mhm. Euh, ba tax na li may wax rek mooy lii dëkk boo xam ne dafa xeexuñu gerte nu mu waree. Mhm. insécurité bi dafa gën a bëri. pauvreté bi également dafa gën a bëri. Euh, tension politique dafa gën a bëri. donc bu ñu bu ñu bu ñu xeet li nga xam ne dañ koy def. ba tax na ñun euh, ñu ngi leen woote xam ne combat corruption nekkul combat wu benn jour. nekkul combat wu jàpp bàyyi. combat wu lu lu lu lu lu pérenne la war a doon maanaam lu lu yàgg la war lu yàgg la war a la war a doon. ba tax na boo xoolee même au niveau africain. ñi nga xam ne ñoo ci góorgóorlu dëgg-dëgg dëkk yi nga xam ne ci góorgóorlu dëgg dëgg dëgg. Mhm. mooy Seychelles Seychelles mooy nekk vraiment premier pays africain sud-sahérien. ñaata poñ euh, moo dox diggante euh, Seychelles ak Sénégal. ñaar fukki poñ ak benn lu yaatu la ñaar mhm. fukki poñ ak benn. Mhm. moo dox diggante Sénégal ak Seychelles. diggante Sénégal ak Cap-Vert. Euh, fukki poñ ak ñett moo ci dox donc yaatu na poñ dafa yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu te boo xoolee même ci ñi nga xam ne ñoo raw Seychelles moo nekk ci kaw après Botswana après euh, Cap-Vert mm -hmm. après euh, Rwanda mm -hmm. après île Maurice après Namibie donc ñu ñoo nekk ci kaw mais nag li war sànq mooy xeex corruption du xeexu benn fan du xeexu ñaari fan xeexu abadan la boo xoolee Rwanda bi nga xam ne dañ koy souvent cité en exemple ci wàllu gouvernance wàllu rigueur ci wàllu cet et cetera et mhm. Rwanda daaw amoon na cinquante six sur cent mhm. naam génnoon na zone rouge bi naam nekkatul woon ci zone rouge bi mais jàpp na Rwanda ren dafa régressé ñu ngi fii cinquante trois sur sur cent mhm. donc loolu jàngat la pour que chef d'état yi gouvernement yi gën a Euh, gën a gën a a am taxawaay ci wàllu xeex ci wàllu corruption donc Afrique quand même corruption bi euh, bëri na bëri boo xam ne bu ñu deful ndànk euh, mën na détail mën na jëm ci wàllu insécurité te bu deful ndànk itam mën na gën a approfondir li ñuy wax pauvreté ak maanaam ñàkk bi. très bien depuis 2016 ba tey Sénégal mi ngi ci zone rouge bi est-ce que jotul réew mi dafi jéego ngir mën a génn ci pàcc googee ndaxte loole mën naa gàkkal xar kanum réew mi. bu fekkente ne président de la République am na volonté yoo xam ne dafa ak ak bàyyi ñu liggéey mooy li ma wax sànq mooy Cour des comptes yi nga xam ne yor nañu ay rapport Cour des comptes ba léegi nangul génnee rapport am te président République waxu leen ne génn leen rapport yi donc loolu problème lay doon donc volonté politique boobu noonu bu amul jàpp na du ñam man day tax na ñun li ñu proposé benn plan plan boo xam ne ak lu ñu ko mën en tout cas ñun plan de progression progressive euh, efficace ñu ko tuddee maanaam premier axe bi mooy ay ay ak ak ak ak euh, dispositif euh, organisationnel bu baax am ay loi mooy am benn loi sur l'accès à l'information am loi sur les conflits d'intérêts am loi sur le financement des partis politiques am loi sur les campagnes électorales am loi bu interdire képp koo xam ne au cadre nga ak ni ñu ko mën a situé nag loolu loo ma ko a wax mais nekk au cadre bu nga bañ a nekk ci gàll ci wàllu wàllu nga nekk ci wàllu euh, impôt yu domaine wala régie financière douane nga bañ a def politique am beneen solution également mooy citoyenneté mooy acte citoyenneté bi. Mhm. parce que boo boo xoolee en deux mille dix neuf. benn conférence de presse boo xam ne président pas conférence de presse mais conseil des ministres. Mhm. conseil des ministres boo xam ne président de la République daf ko daf ko organisé woon le dix avril deux mille dix neuf. daañu wax le gouvernement na leen bëgg naa ñu finaliser la stratégie euh, nationale de promotion de la de de la citoyenneté. te bëgg naa ngeen finaliser ko au plus tard le fin en fin mai deux mille dix neuf. ba tey eh, ba sànq. stratégie boobu noonu ñun forom si ñun ministre de de la jeunesse ne ko bëgg nañ kat am fu mu toll non seulement tontuwuñu mais jusqu'à présent gisuñu également fu stratégie boobu boobu toll donc mooy deuxième axe troisième axe nag mooy wàllu sanction ndaxte jàpp naa ne sanction politique ak sanction négative bokk na ci loo xam ne dina mën a tax euh, ñu xeex guerre ci wàllu comportement mais également alors mu mel ni rapportu 2015 bu jëm ci wàllu contrôle finance que euh, bànqaas googee di cour de comptes dafa am lu ñu duppee ab disposition législative bu ko mën a may ba du siiwal rapport yi nga xamante ni war nañ ko génne leeral askan wi ci mbir yi. Euh, amul benn disposition législative boo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour que des comptes bañ a rapport yi. kon lan moo tax rapport yooyu ba tey kenn fësalu ko. moom moo ñu jaaxal ñun ñii forum civil. Mhm. moom moo ñu jaaxal pourquoi rapport yooyu léegi fësaluñu ko. moo tax sànq ma non seulement Cour des comptes bañ na ne ak UGF bañ na ne duñ publier mais également président de la République jël ci benn mesure. Mhm. donc ñun ñu mën a wax ki ñu mën a waxal moo président de la République en tant que euh, clé Euh, les rapports sur la sur la gouvernance bu ko bu ko bu ko deful je pense que des comptes également war na jël responsabilité pour publier li nga xam ne askan wi ñoo ko moom parce que loolu loi moo leen exigé seen mhm. article trois li nga xam ne moo leen moo leen tëkk moom moo leen exigé euh, donc euh, tey jot na pour que Cour des comptes e ak yeneen corps yi muy ARMP parce que wax naa mhm. a taxal mhm. bokk na ci directeur général bi nga xam ne moo nekk ARMP da nga xam ne na mandat jeexal na mandat depuis trois cent mille à la tête de la mhm. a a euh, am na tam yeneen i mbir lu si mel ni euh, mbirub Prodac Big Togo ak euh, mbirub quatre-vingt-quatorze milliards yi ñu indi coow li cour ci biir réew mi ba tey France daal xiddeem kenn yu si yàbbi mooy impunité bi ñuy wax parce que mhm. boo gisee Prodac Prodac ñu wax ko souvent da dégg ñu ngay bëgg a politiser moo tax souvent duñ ci bëgg duñ wax lu bari nekk lu ñu lu ñu parce que xaalis boo xam ne dafa doon ci ndaw ñi la xaalis boo xam ne si créer emploi jàpp ne kat ci ay vingt milliards vingt milliards nekkul vingt neuf milliards li milliards de francs CFA gannaaw Prodac nañu ci moom daanaka depuis deux ñu ngi koy wax xëy xëy benn jour ne indemniser toll ci douze milliards de francs CFA ñu leen amee këyit yi firndeel indemnisation bi ba tey la sànq gisuñu ko tey jii kat seen naataam libération jël ci wàllu université Amadou Mahtar Mbow daa di ne lu toll ci fanweeri milliards euh, en tout cas milliards jox nañ ko ko te uni gisuñu université gisuñu dara loo xam ne dem na université donc loolu jar na muy assemblée nationale le président Philippe ñu interpellé également euh, euh, le ministère pour que mm. quand ñu leeral lañu mbir moom du mu demee quand même duñu bàyyi duñ joxoo di ñëw ci suñu dem noonu comme ça ci ñoo xam ne tegu ko tegu ko fenn lan la forum civil mën a recommander gouvernement bi bu ko defee mbirub guerre wàññeeku ci réew mi waaw bokk na ci plan bi ma la wax sànq plan de progression efficace bi ma la wax sànq ñetti mm. axes yi euh, na ci également euh, réactivation cours de cours de répression de lancement illicite parce que mm. état bi jëm ko feet fexe lu mu koy defee ci institution yeneen institution sociales yi muy IPRES mais également muy caisse de sécurité sociale bokkoon ci également demandé euh, assemblée nationale ñu gën a user maanaam utiliser seen pouvoir euh, constitutionnel et législatif pour leeral askan wi ci projet yi yenn programme ak projet yi naka nañ ko euh, joxe ak naka nañ ko gérer la Touba autoroute Dakar dem ñaajo autoroute également bi nga xam ne joxe nañ avant démarrage mooy Fatick Kaolack mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen bëri na ci Amadou Makhtar Mbow, la, la de l'émergence, ci Diamniadio bi voilà hmm. bëri na ci ay ay ay ay projets yoo xam ne ñu ngi demandé gouvernement bi euh, mu mu leeral indi si leeral askan surtout assemblée nationale bokk na ci également euh, gën a ñaax le doyen des juges euh, pour mu gën a leeral mbiru quatre-vingt-quatorze milliards yi mais également mbiru Petrotim hmm. Sénégal ñu ngi xaar baax baax lu yàggul dara monsieur Ibrahim Seck quitté ngeen salle négociation dialogue national ci digg réunion bi est-ce que mën nga dikkaat ci lu xewoon ci bés boobee waaw a boo koy woo ci da wax ci mbiru nangam mbiru nangam comme da nga dialogue national bu ne dialogue national je pense instance bu nekk am na sañ-sañ bi waxtaan discuter ci lépp mais nag boo ñëwee ci saal bi kat ñu si bëri ci opposition bi wala ñu si bëri ci pouvoir bi doo xam lu ñu nëbb doo xam lu ñu nar ñëw naan la kat fii nga yem maanaam doo leen ci commission politique bi dama am si ñoo xam ne yéen décret bi la fal moo leen fal même bi la ñoom ñu ah, bëgg yooyu itam du du du maanaam du seetaan ëllëg dara dafa génn mu koy endossé non maanaam bu ñuy waxtaan génn mbiri dañ fay dañ fay dañ fay toog bu ñu ko mënta toog nag bu ñu permettre ñu toog fa nag yàlla ñu mën def mooy euh, génn fa ba seen xel ñëwaat génn saal ba xel ñëwaat donc loolu lañ def wan leen kat li ngeen bëgg a def ni kat ñu moom mooy jox participant dialogue national bi yëkkati woon na coow mën nga ni andi ay leeral ci loolu tam per diem yi waaw loolu nag yaakaar naa ne jarul coow fekkante ne par exemple dañ leen may cinq cent franc pour nga jël pour nga paas wala ñu may la itam pour nga jël tàngal wala bonbon nga ne dee man mën naa paas sama bopp te mën naa jël sama bonbon mën naa jël sama tàngal loolu jarul coow loolu koy wax dëgg yàlla ku si bëgg a coow dangaa bëgg coow forum hmm. civil loolu rek la def dafa ne tàngalam bonbon ak paasam mën na ko en charge loolu koy jarul coow monsieur Birahim Seck jërëjëf ma fàttali yow yaay coordonnateur forum civil merci beaucoup